salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lii leen texte bi texte bi day weddi ne loolu amut de wax bu ñuy wax ni buur bi daganal na sàngara ak fele yu mel noonu nee na amut de moo tax ñu war a def naaka nag alquran du juum de waxu yàlla la information bu ñëwee leerul bu baax balaa ngay jóg di wax am na solo waaw nah, asalaamaaleykum xaw nah, a ñàkk jot tuuti quoi mais information bi waa ji indi woon sax mais dégg na daa mel ni dañu lii du dëgg ko maanaam waaj daf ni xam nga su fi yi ñoom fii nii ñoom yaakaar naa ñoom xam nga ñoom ak waa ji ñi ko ñoo yem wala ñoo <laughs> ñoom ñëpp ci ci ceetaane la ñuy dox mooy kii nu mu tuddati Ben nag ay yooyu moom ñoom moo tax fi gisoo peut ba dañuy dem ba xam naa sax wax loo xam ne xëy na nekkul dëgg ci guñ ci dë nekkaguñ ci yéggaguñ ca ñoom ndax ñoom maanaam Euh, liñ naan wax sàngara si nga xam maanaam sàngara li muy bon bon bon bon ñoom liñ nekk ko gën a maanaam doy waar ndax ñoom ci mbokkaale lañ nekk ñoom ak maanaam jëf yi ñu def moo gën a ñaaw si bu dee Arabie Saoudi kon liñ ci wax rek màkk daal moo fa maanaam moo moo nekk li concerne jullit yi ak ak ak nu mu tuddati ak ak Madinatul Munawwara waaye la ca des daanaka moom bu ñu doon naaw ci jaww jee defee affaire moo gi moo dëkk yëpp a yem maanaam moo yeneen dëkk yëpp yem ci wàllu dëkk daal waaw maanaam luñ fa mën a def ak luñ mën a doon waaw Sénégal comme li may wax rek mooy maanaam li gën a doy waar mooy ak ceytaane boo ci xasee ba nekk yow da ngay maanaam da ngay da ngay doy waar quoi ba nga xam dangay ngay fen ak ñu ne leen koy def ngir bëgg a euh, justifier li nga nekk parce dafa metti dafa metti quoi. waaw ki ne ci dëgg nag maanaam moom ku ci nekkut maanaam ku mu mën a doon boo ci nekkut moom yoonam du maanaam maanaam day xam ne nekkoo ci rek et puis ah, maanaam daal subhanallah maanaam su gaa maanaam xaw ma ñii ñuy tuddee suuf yaa ngi information bu mu jox nit war nga koo xoolaat bu baax parce que dañoo mën a fen maanaam fen du daa parce que fen mooy arme bi gën a fort ci seytaane waaw mooy bi gën a fort ci seytaane te ñoom moom lañ yore di ko utiliser quoi ngir rek. maanaam ba maanaam ji jéem a wane ni exemple euh, ñi nga xam ne dañuy jéem a ne ci diine ji ak yooyu euh, am nañ ay kii ak yooyu te lii concerné wul ñi ne ci diine ji sàngara kay wax dëgg yàlla koko maanaam nguur yi moom comme li ñu wax ni yi faaw nit ñi xam ni nguur yi seytaane ko yor waaw nguur yi moom ah man de bu ci seytaane yoru gëw ma ni am na parce que boo xoolee li ñu doxalin beeg yooyu mais subhanallah maanaam ñii nga xam ne ñu tuddi diine ñoom conneries yi ñuy def ñoom faaw ñu wut fu ñu koy jéem a làq ka defee affaire waaw Arabie Saoudite c'est pas nu mu tëddati maanaam <laughs> il faut ñu yeewu ci ni Arabie Saoudite en tant que tel du problème maanaam du problème bu julli yi julli yi seen problème mooy placé ñoo fa ne rek ñoom ñu boole ci réew ma sax ndax sax am nay temps yoo xam ne am na ci dëkk yoo xam ne ña nga ci biir ñu tuddee leen Arabie Saoudite bokkuñu woon sax foofu ah amee day soppi koy rek waaw foofu turam dëgg-dëgg Hijaas la tudd maanaam maanaam tur yi day soppi kooku def affaire rek parce que ci wàll réew ak ki kii ak yooyu moo tax subhanallah yàlla na yàlla ñu gën ñoo gindi quoi man yii moo tax toujours daanaka daa am dama ci bëgg dugg sax parce que amul benn sens quoi amul benn sens ñoom ña ngay football ak ña ngay naan sàngara ak te yow bu dee julli yooyu yëpp nit da def bàkkaar la sax garaaw maanaam bàkkaar la quoi lu garaaw la mën na laa yóbbu nu mën na laa génne maanaam mën na laa indil problème waaye du la génn sax ci islam ñoom ñuy def moom da leen di génne far ci islam waaw weddi yàlla ak di di ni far ni xam nga ni ku ku ku ku ku seen sëriñ su mag si ñuy wax xam ne ñoom wax du jot lañ gëm ñu ci bari waaw ay bàyyi ñes ak yooyu nga xam ni wax du jot képp wax du bon joo xam ne maa yàlla ak ñooñu vraiment naan ko sàngara moo leen gën.